taxaw ci wàllub financement parti politique yi fii ci réewum Sénégal lu ñu tàmm la débat public bu am fan yile ci wàllu woowee gannaaw tuuma bi nga xam ne député bu Benno Bokk Yaakaar daal di koy tuumal Ousmane Sonko nekkul lu bees ndax nag loi bu 91 17 bu juróom benn fan ci weeru mai bu atub 1981 mi nga xam ne soppi nañu ko ci atub 1989 ba léegi mu ngi indi ay cow rawatina bu ñu demee ba tolloog ci ay élection ci fàttali ci atub 2009 Macky Sall mi nga xam ne jamono jooju mu ngi woon ca kujje jega dañ ko tuumaloon ci li jëm ci wàllub blanchiment d'argent ñu waxoon na rek ci jamono jooju moom Macky dafa jotoon doon ay koppar gu bawoo ca Omar Bongo nekkoon njiitu doomu Gabon ca jamono jooju ci atub 2015 itam coow la daal di nay dikkaat gannaaw éclatement affaire Lamine Diack ci fàttali ndem si yàlla njiitu fédération internationale athlétisme ba woon ci kanamu enquêteurs yi dafa waxoon ne rek benn ci koppar mi nga xam ne ñu ngi ko ci topp def ko jëloon may ko opposition bi doon xeex maître Abdoulaye Wade ci jongante présidentielle gu atub 2012